bismillah salaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi dellu siwaat ak yéen ci suñu jataayu fahal min mudakkir muy fàttalante ci alquran loolu na yóbbuñu ci waxtaane Cheikh Ahmadou bàmba ak ay jaar-jaaram xam ngeen ne ci suñu jataay bu mujj mu ngi tolloon fi nga xam ne fi la bi egsee ci jeewal ginnaaw bu mu xëyee ci mbàkki bari ci gaaw boobu dëppoo fukki fan juróom-ñett ci weeru safar di samina achar jeewal itam di béréb boo xam ne fi la tubaab bi dajeeg sëriñ bi muy tubaab bi nga xam ne moom la borom ndar yebaloon muy jël ci sëriñ bi ak sordaal yi mu àndaloon sëriñ bi yendu jeewal julli fa tàkkusaan fas yéene itam fanaan foofee ci jeewal tubaab bi moom bëggoon sëriñ bi daal di wéy rek ànd ak moom te sëriñ booba amaagu tëggutoon ndigal ci yenente bi alayhi salaatu wasalaam ngir jóg déplacé jàll taxoon mu daal di dogu ci ne day fanaan jeewal sëriñ bi nga koy nettalil boppam nee bi tubaab yi dajeek ñoom ñi nga ànd ak xol yu xat mel ni ñu am lu leen naqari waaye yàlla def itam ci seen mbooloo moomee sëriñ bi mi ngi leeral ne am na ci koo xam ne moom siyaare si ma moo ko taxoon a jóg ñu di ko wax sëriñ Omar Ñaan booba kooko taalib sëriñ tubaala la dafa jógoon ngir siyaare si sëñ bi yàlla def nag moom mbooloo moom it duñ jëli sëriñ bi ñu bokk aw yoon te itam ñoom xam nañ ko ku ñu xamoon la te it am na fu ñu ko woon moom nag siyaare sëriñ bi moo ko taxoon a jóg bi mu dajee ak ñoom itam gise na ak sëriñ bi jokkalante moo ay kàddu jotal siyaaram door a wàññi ko sëriñ ba des foofa fanaan fa sëriñ bii nag ci zahir tam li ko jàppandal maanaam fanaan foofe ci jeewal mooy xaadatul jëy si bi nga xam ne moo jiite woon mbooloo moomu di nit ku weex ak tubaab la moo leen jiite woon dafa toog ba yàgg rek mu daal di dàq fasam daal di dem te ba muy dem sax tàgguwul ñi mu taxawaloon itam fu jëm dafa dàq fasam rek daal di dem te boobu mooy seen kilifa ñoom it mënuñoo def lu dul xaar ko ba mu ñëw ndax jàppuñu woon ne fa mu jëm fu muy yàgg lay doon yàlla def nag ba mu demee foofee mu dem fa la far fanaan ci suba ga la door a dellusiwaat si mën lañu jób dagana mi ngi nettali ne bi mu demee nag bàyyi na fa keneen koo xam ne moo jiite mbooloo ma fa des waaye kooka nit ku ñuul la ñu fàttali itam ne booba sëriñ bi ñu ngi àndoon lu tolloog fukki nit ak ñeent ñu waxoon ne juróom ay mag lañ juróom ay ndaw lañ ko sëriñ Moustapha Lo nettalee te jëlee ko ci sëriñ Abibu Mbàkke radiyallahu anhu sëriñ bi it mi ngi wax dajaga ak ñoom وبعدما لاقوا الذين خرجوا لداره وفي الصدور حرجوا ساروا معا نحو الوزير مسرعين وعند وقت العصر صلوا خاشعين نحن نفوف فلن يجل تاكسان سرين بنك بيه مغرف ممتو بابا ما ينتلي waaye buy nettali day mel ni ku teg boppam na le di wax mel ni kii ki وبعدما لاق الذي وبعدما لاقه ذلك الوزير وهو له وحوله الجيش وفيه من يزور وبعدما لاقه ذلك الوزير وحوله الجيش وفيه من يزور يعني بقى خمين موم دجنا اك وزير با مي كليفه جي توباب بي يوني وون كفيك نينا ارمي بي اندال waye nek li ci sin bir neena ko siyaare sëriñ bi moo ko taxoon a jóg kooku nag mooy sëriñ Omar Ñaan min doon wax léegi nga xam ne taalib sëriñ bi la woon wax nañ ne ko sëriñ bi fonkoon la ginnaaw bi sëriñ bi jógee ci tukki ba ñibbi si njaareem sax ginnaaw bala door a nelaw wax nañ ne ba mu faatoo itam ci ni ko suñ mën jëm mën Lamin Jóob Dagana nettalee ne sëriñ bi seede na ci moom seede yoom solo moom la suñ naan wajjaha wajjahuhu ila allahi alkarim duna alwaziri li yanaala ma yarum mubasmilan xamsina saa tadarroi liman mata yakk bida abduwan yusrai bi nga xamee ne ne seen kilifa googu ñëw na bëgg a jàkkaarloog sëriñ bi sëriñ bi ñu def ko dummuy acc rek xolom ci yàlla jàng basmala bismillahi rahmaani rahim juróom fukki yoon wëlbatikuwaat ci la seen njiit loolu mel ne ku nooy mel ne suñ borom daa fay sawara bi doon takk ci xolom naqari deret gi nekkoon ci moom daal di mel ne lu rocciku tax na sëriñ bi dafa mujj fanaan foofee ci jeewal nga xam ne moom seen kilifa googu moo jékki-jékki rek daal di dem te ba muy dem sax tàggoowul wa xarajal wasiru musraan ila xaajatihi wa baada hmm. nag la yàlla roof ci moom ba tax rek mu dàq fasam dem te tàgguwul kenn xamul fu mu jëm te dellusiwaatut ba bët set loolu yàllaa ko xam suñ borom dafa xereñ hmm. yàlla bu ko soobee mën na ko faa teg sax biir buy daw bu ko defee dootu fa a taxaw te biir buy daw xam nga bu jàppee nit ñaare mën na faa yàgg lool waaye la tax mu daal di jékki-jékki dem daal yàllaa xam waaye xam na ne mbir la ngir la sëñ bi daal di fanaan jeewal ba fajar ginnaaw ba la fa door a jóge daal di jàll foofee nga xam ne mooy kokki fekk fa ko ñuy wax sëriñ maxtaar binta nee nañ kilifa la woon ci gox boobu kilifa gu ko gu ñëpp xam sëriñ ba yendu fa tàmbali itam di taalif li nga xam ne mooy asmaa ahlu badrin di xasida koo xam ne mboolem saaba yi teewoon badar andi na ci seen tur da leen tagg ak di leen ñaanal ndax xam nga sëriñ bi naka jekk ci tukkeem bi ruux yu sell yépp ñi nga ànd ak moom di ko gunge ak di ko jàppale loolu mu tasaw yu foone ñoom danañ ko xam nit man la fay jóge ba noppi mën a dellu si àdduna di dëgëral nit ak di ko moo tax nga dékku mu naan asiru maa al abraari xiina asiru wa danna al ida anni hunaka asiru nee na man maa ngi dox ànd ak gaa yu baax yi ànd ak gaa yu waaye ñoom nag ñu ngi jàpp ne man asir la prisonnier la bu ñu téye te fekk booba man maa ngi dox ànd ak ruux yu sell yëpp te loolu mooy ruux morseleen yi ak anbiyaaw yi ak kumulul awliyaaw yi ñëpp ñu ngi ko doon gunge ci baatin booba sëriñ bi wéetut sëriñ bi noonu mu yendoo ko kii itam fanaanu fa ginnaaw ba ñu jullee gee ba pare dafa daal di rañaan topp guddi gi daal di wutali foofu nga xam ne mooy Louga boo fekk na it asamaan si neexul ñu ngi taw taw bu woyof boo xam ne taxu koo am doole li ñuy wax tallu rek la muy wicc wiccal taw bu yem waaye teewul rek sëriñ bi topp guddi gi daal di dem wax na ne itam ngelaw yu yoroon. sawar na lool ci dox bi ba mujj na raw ñi nga xam ne ñoom la tubaab bi yabaloon ba dañoo mujj di joor sëriñ bi ci guddi gi ngir mu xaar leen ngir mu wàññi ay jéegoom sëriñ bi naa leen yéen kat sàggan ngeen ndaka leen seen kilifa yónnee ngeen di yeex bañ di leen raw wan leen ni loolu waru leen war a dal ba noonu sëriñ bi egge Louga njëkk fajar Euh, ci guddi ga foofee ci Louga fa la ñu ko nekk ba xëy yenduwaat fa itam ba ngoon ci tàkkusaan dafa sëriñ bi door a jóge jàll foofee nga xam ne mooy ndar Louga itam am na kilifa yu fa dajeek moom sëriñ bi yendoo fa sikkar di jaamu yàlla ñu ngi woo suñu borom yi nga xam ne mooy alwali mooy méngoo mbiri jaam ñi te képp ku mu àndal rek nga am doole ndax ala inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxsanun ginnaaw buñ lee tàkkusaan foofu ci tàkkusaan fa la jóge Louga daal di bàyyi nag fas wi nga xam ne moom la waroon daal di dugg li ñuy wax gaal jéeri muy saxaar ci gisaaw sakoor sëriñ bi ni muy nettalee bu dee saxaar daf koy tuddee gaal jéeri bu dee nag gaal yi ci géej gi mu tudd leen safinatul bahri kon safinatul bahri ak safinatul bari lay wax bu ne safinatul bari mi ngi ci jublu ga euh, maanaam saxaar gi mais safinatul bahri nag mi ngi ci jublu bato bi nga xam ne ci lañ ko dugaloon kon sëriñ bi foofu la bàyyee fas wi daal di dugg li nga xam ne mooy saxaar ca gaar ba foofee ci Louga daal di wutali ndar teewul ba tey mbooloo mi àndoon moom ñu ngi ànd ak moom mbooloo mi foofee ci ndar fa lañ tàqalikook sëriñ bi waaye dem nañu ba ndar hmm, ndar itam egg nañ fa bi timis desee ay minutes yu néew waxtu timis daal la egg ndar ndar googu nag sëriñ bi xaw na faa yàgg ndax am na fa weer ak lu tegal tegal na juróom ñeenti fan ci yenn nettali yi ñu ne tegal na fukki fan weer ak fukki fan mu ne xaakim bi nga xam ne moom la fekkoon Louga nag yàlla dafa def nee na bëgg ko woon dara kon noonu sëriñ bi la koo xam ne lu wax ci moom lu rafet du wax ci moom lu rafet ba noppi daanaka ci li ko gën a jaxaseeg nee na borom ndar ci la bokk jubluwutoon sëriñ bi te lu koy gën a dugal rek la doon wax waaye sëriñ bi ne nag loolu yëpp nag ànd ak dogalub suñu borom fekk loolu mooy li yàlla namm ndax suñ boroom mooy def lépp lu mu namm ci baati nit dana ko wutal sabab ci zahir waaye ci dëgg-dëgg rek mooy mbir yi ci bopp ni mu tëddee mooy ni nga xam ne ni la ko yàlla namme foofu ci ndarit nga bàyyi xel ne fi la borom ndar wootee woon nga xam ne dañoo woowoon sëriñ yi nekk ci senegal yëpp ñu tolloon ci juróom-ñett fukk ak ñett ndax kenn ci seen conseil yi leen di xelal moo leen waxoon ne sëriñ bi su ngeen bëggee jot ci moom bu leen ko woo moom rek su boobaa day ñuru ne moom ngeen sib sone faaw ngeen woo rek sëriñ si boole waale ko ci su ñëwee dangeen ci ngeen di mën a jaare ngir jot ci moom ngir téye ko moo tax sëriñ bi moom rek du moom la ñu woowoon waaye juróom-ñett fukk ak ñett matoon nañ ko ci mboolem sëriñ yi nekkoon ci Sénégal bañ leen woowee itam tubaab bi daf leen doon andil ay loi yoo xam ne moom la bëgg ñu doxee ko ci réew mi te mooy ñu bàyyi mboolem activité yi jëm ci wàllu lislaam jëm ci ay jàng jàngale ak woote yu mel noonu ak dajale mbooloo bëgg loolu lépp ñu wéer ko teg ko ci suuf sëriñ bi moom bi mu ñëwee ñu boole ci gàll ko ay tuuma ndax mooy lettre bi mbaaxaan bindoon joxoon ko borom ndar wane ne Euh, maa ngi jum ne mbaaxaan maanaam leetar bi ma Abdoulo bindoon ndax mbaaxaan am na leetar ba mu bindoon waaye loolu ba nga ca kanam eggaguñ ca waaye leetar bi ma Abdoulo mooy ki ko bindoon te defoon ci signature Samba Laobé daal di wane ne borom ndar man Samba Laobé ak Serigne Touba bettuñ la waajal ñu ngi dajaloo ngir jëm ci sa kaw loolu mooy leetar bi ma Abdoulo andi woon tuuma jooju lañ ko njëkk a tegal. wan ko ne yow yaa sàmbalaw be yéen yéen a wax ne yéen a ngi waaj ngir dal ci suñu kaw mhm. loolu nag sëriñ bi tontu ci ndax daf ne rek loolu ngir mu tontu ci ki ko tuumaal day teew ki bind leetar boobu wax ne man maag sàmbalaw be ñu ngi waaj ngir jëm ci seen kaw kooku na teew bu teewee rek dëgg gi daal leer saa buñ ko waxee ci loolu rek loolu la ciy tontaat danaan loolu moom ki ñu ko tuumaal daal bu teewee mu tontu ci na teew te loolu lépp nag teewul sëriñ bi nga ko booleeg di sikkar turu yàlla ak nekk ci la war a nekk bu julli jotee mu julli maanaam daal yàqaluñ ko dara ca la war a def sëriñ si itam sëriñ bi moo ci nekkoon numéro 4 ndax ay numéro lañ leen defoon lañ leen defoon benn liste boo xam ne. kenn ko ne sa tur mi ngi ci sa tur tam am na numéro bam tollool sëriñ bi nag moo nekkoon numéro 4 bi ngeen fàttali ci waxtaan wi ci ginnaaw itam waxoon nañ 4 muy ñeent jagle yi ci sëriñ bi am ndax gis nga ne feetu ko indépendance bi ñuy def fii ci réew mi ñu ngi koy def 4 avril 4 boobu di jëmmal ne sëriñ bi moo xettali woon waa Sénégal moo tax yóbbu bi ñu ko yóbbu ci 4 sax ñoom xamuñu lu tax ndax jibluwuñ ci woon dàkk kaat ngir ne ci la sëriñ bi ngir ne moo nekkoon numéro bi sëriñ bi doonoon ci bi ñuy woo sëriñ ci waaye yàlla moom moo dul def dara ci asaar lu mu def rek am na lu tax 4 avril boobu tam daal di tombeek weeru avril nga xam ne mooy ñeenteelu weer itam ci at mi yooyu yëpp nekkoon ay ishaara yuy wane ne sëriñ bi moo libéré Sénégal andil leen jàmm ba tax na dat yooyu ñoom biñ koy jàpp sax seetluwuñ ko waaye suñ borom leen ci dat yooyu ba mu gën a jëmmalaat liggéeyub sëriñ bi ndax jëmmi indépendance bi ci vingt août ci weeru août bi mu amee ñaar fukki fan ci lañ ko amoon weer woowu itam juróom-ñetteelu weer la tombeeloon kon la toxal mbir yi nag ba indi ko ci 4 avril loolu mbirum suñ borom la di rek numéro 4 boobu nga xam ne moo leen xattili ndax sëriñ si ñetti sëriñ yi njëkk a woo ñoom la tubaab ba bëggoon defuñ ko sëriñ bi moo leen ñeenteel waaye ginaar bi sëriñ bi jàllee mboolem sëriñ si ca toppaat dañoo signé la tubaab bi bëggoon ñu signé ko sëriñ Kokki moo nekkoon numéro un doonoon kilifa gu baax ñu daan ko wax Mouhamadou Aminata Yàlla Jóob moo nekkoon tedd liste bi nga xam ne moom lañu njëkk a woo tubaab bi itam lañ leen doon sant te bëgg ñu signé ko mooy wax leen ne bépp activité boo xam ne day dooleel lislaam di yàq mbirum tubaab bi du ngeen ko waxati du ngeen ko def ak doonte lu leen yàlla digal la lépp loo xam ne nag mooy dooleel tubaab bi loola ca ngeen di dox ca ngeen di wax ak doonte sax lu leen yàlla tere la loolu mooy maanaam li leen tubaab bi doon signaloo ni leen itam yëmuñ ci rek ngeen nangoo ko ak signé ko ñu ngi leen di bàyyi xel ci réew mi kuñ ci dégg mu dox doxin bu bokkut ak bii ñu jiboo ak moom danañ ko jël siwaat waaye Mouhamadou Aminata Yàlla Jóob biñ ko signaloo dafa lànk yàlla ak ngëm-ngëmam daf koo jaral bakkanam xañ nga dégg na aaya ja suñ borom ne inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yàlla jaral na ko dee ndax la tubaab ba bëggoon mu signé ko nangu ko nangu ko siñewu ko waaye dañ koo daal di rey am na ñu wax ne dañ koo boole gaynde ga am ñu ne dañ koo rey rek ci paaka waaye daal faat nañu ko ñaareel ba mooy sëriñ màkk biraama xaali moo ci toppaat waaye moom itam la tubaab ba bëgg defu ko nangu wuta signé nangu wuta ànd ca la tubaab ba bëgg moom gëm-gëmam jaral na ko bakkanam moomit it ñu daal di koy rey te ca topp mooy sëriñ Balla defe naa moom la ñuy wax tafsir tafsir Maxtaar Bint defe naa mooy sëriñ Balla mooy ki leen ñetteel moom it mu lànk li tubaab bi bëggoon ñu daal di koy rey ñu door a egsi ci sëriñ bi muy numéro 4 sëriñ bi nag moom yëmul ci lànk la ñu bëggoon waaye dafa bind ci boppam li nga xam ne mooy lixlaas قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد سيدنا يا الله رك مو يا تكن يا الله كذل مام وحنا الإخلاص يبقى مو إلى مو بند دفكم مو يسنياتيهم jëmmal ne li yàlla bëgg rek ca lay nekk waaye doxul ci bëgg bëggu keneen ku dul bari nañ ñuy nettali nag audience bi sëriñ bi am ak borom ndar ci biro ndar di ci tudd maam Cheikh Ibrahima Fall wane ne moo ñëw jël sagal ak ndox sotti ko ca fa sëriñ ba waroon a toog ngir laabal béréb ba ak yu mel noonu waaye wax dëgg yàlla audience boobu maam Cheikh Ibrahima Fall fekkiwu ko gise gi sëriñ bi doon gisee borom ndar ma Seck bun Muxtaar rek moo ko fekkee defe naa ci nit ku ñuul ak tubaab yi mu ko seqaloon te moom moo doon jottali waxi sëriñ bi di ko firil tubaab bi tubaab bi tam bu waxee mu wax ko sëriñ bi waaye maam Cheikh Ibrahima Fall fekkiwul yëpp sëriñ bi ca biir Ndar te sëriñ bi bi mu egsee lim njëkk a def rek mooy kàbbar julli julli koo xam ne julli gu yàgg la ndax mat na quarante cinq minutes yoo xam ne sëriñ baa ngi julli ñaar rakka yu yàgg bi mu sëlmanee nag diggante boobu yëpp ñu ngi ne yàgg di ko xool ñemewuñ ko ndax melow jëlaal yi nga xam ne moom la tàbbee ci ñoom waaye bi mu sëlmalee nag laataa ñuy wax ak moom sax ca lañ koy signaloo dañ ko njëkk a attaqué ci julli gi mu julli seen béréb bi war ko ne sa geste yi def ci suñ béréb bi nii lu tax nga def ko mu wax Dudu Masek ni ko nee leen sama borom ma koo sant sant leen ko ñoom ñu gàntal ko ma nangu ko te fu mu dugg rek bala ma faa def dara jaamam fa sama borom nañ wax rek lañ may doyee loolu nag bi ko duudu ba sekk jot lee tubaab bi tam tubaab bi xolam daal di gën a tàng mu gën a am la ko naqari sëriñ bi dañ ko waxee lañu bëgg moom ba mu yëkkatee xalimaam la mu bëgg mooy lixlaas duudu ma seet duudu ma sekk mun muxtaar jottaliwaat leen ko xamal ne kii daal nee lii mooy gëm-gëmam yàlla jooju mu nekk daal nee moom rek la gëm te du ko yemale kenn toll nañ fi ñu war a yëkkatee jataay bi waaye loolu dañ ciy dellusiwaat léegi incha allahu la leeral itam ginnaaw ba boole gi ñu ko boolee gaynde gi ci ndar ak itam yeneen sëriñ yi ci des seen taxawaay ginnaaw bi sëriñ bi jàllee kon danañ amalaat jotaay incha allahu taala ñu wax rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi ci seen chaîne bii di PS Santé bu leen fàtte partager vidéo yi ngir ñëpp mën cee jëriñ